jamono ji fi mu toll. Hmm. yu xew yu bees yi nit ñuy woote. Hmm. te mënoo ni islam la mënoo ni murid la. Hmm. dañ koy tuddee ak murid. di ci tuddoo sëñ Tuubaa wala njaboot ak sëñ te ku xam na ne sëñ Tuubaa dund loolu ak njabootam dund loolu. yërewu leen ci tamit yu mel ci baax. li nga jàng ji sëñ xarit mi nga xam ne nag moom sëñ maam Thierno mooy maam ndax sëñ Moussa Absa mooy wajuram sëñ Saliou itam mooy maam ndax. soxla moom mi wajum sëñ Saaliw boo ko mooy wajum boole si nag mu yar ko mu ne ci daara ji tërbiye ba wàcc di dundi bàmba ji itam ak di ko dudal ndax ku ne xam ne ci daara lay yëngatu ak ci imaamatu ak ci tool ya loolu mu doon na ci maam doon ko ci eh, ay wajuram kon rafet na ñu ko ci ci lim xam ci dund ko ci diggante sëñ Saaliw ak sëñ Tuubaa ak lim déggee ci yoonu lim xamee ci histoire man mu daal ñu ko hmm. jërëjëf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 ndigal nga ñu jox. mu mhm. moom ndigal rek. Mhm. jëfe ndigal rek moom ko war moom ndigal jógee. Euh, ñuy tàmbali rek di wax ne yoonu morit li mu sosoo ak léegi diir bu yàgg la ni nga xam ne ni la yeneen xarakaat yi ak yeneen torox yi demee mhm. bu demee ba am diir bu yàgg faw ay njaxas njaxas dina ci dugg loolu dal na yoon yu bari noonu lañ ko tàmbalee sax ci jëmmi lislaam ji nga xam ne ci lañu nekk di diine Muhammad sallallahu alayhi wa ku ne xam ne ne firaq yu bari dugg na ci biir yoo xam ne dem na ba yonent bi di wax na ak nekkam danañ dem kuréel ak nangam danañ génn ci ci ci ci ci lislaam waaye benn rek moo ciy mucc loolu itam ci yoonu Sëriñ Tuubaa yi ku ne xam ne ne yaatu na yaatu goo xam ne Euh, bi mu wootee ñëpp wuy si nit mm-hmm. kenn ku nekk ak sa jikko mm-hmm. nga dikke mm-hmm. ñi am tawfeex yi mu tërbiyee leen yar leen ñooña la nga xam ne moom la nekkoon te bëgg ko ña ngi koy dund xam nañ ko waaye am na si ñoo xam ne dañoo wuy si ngir xër bëgg waaye nag jonjoowuñu ak moom jonjoo xam ne la bëgg def kuréel yu bari <coughs> ci biir loolu nag jamono bu nekk mom lim bindon mi ngi fi bàyyi ko fi wax na ñet ñet yi moy yi nga xamne euh moom la doon euh defare nit ñi bi ci ñeuk moy euh xassay bi yi nga xamne mom la bind bàyyi fi xassay bi buñ ko waxe ci biir xam-xam téré xam-xam lépp mi ngi ci lim leral ñun ñu bëgg ko doxe naa yooyu rabbil karim bi kutubi lay sa tarim anwaaruha wal yéerum ahmadu xayra safadi wax ne itam mbindam day defar nit ki da koy jegeel boroom da koy àggale bi ko ñaareel maanaam mooy ñi nga xam ne ñoom la jural boppam muy ay doom yi boppam sëriñ Saliou daana ko nettali lu bari di wax ne daf leen a masa woo Mamadou Fall bi sëñ Basiir sëñ Mourou Sowa ba ñëw mu wax leen ne yéen seen liggéey ci nit ñi laa ko jëmale bëgg ngeen defar nit ñi wax nañu sax ba ko waxee ba ba ñu génnaatee dañu wax werante ci seen biir ne bu ku ñu defar ba noppi lu ñuy wax fajuk aajo nu ñu koy ñu koy defee ci murit bi. bu mm-hmm. ñu delluwaatee laaj ko ko mu ne leen la di wulle rek ku mokk ay duy. Mm-hmm. di ko ñetteel maanaam mooy ñi nga xam ne ñoom la yaral boppam. Mm-hmm. mag yi mag ñi newoon ci kippaaram. ñooñu itam euh, lay firndeel ne defar ñi la leen di defloo mooy loolu Serigne Salima daana ko nett lu bari. mu ne dafa am murit bu ñëwoon ci moom moom moom sëñ sëñ bu mag bi fekk ku bind mu ne ko luy tànk yi mu ne ko ku ma defar sëñ bi ne ko defar taqoo la laaj te ëwmatuma jot gi mu ne walañ di dem mu ne ko da ngay dem wala taxawaat mu ne ko Balla Fall yi di defar naa ko boo demee mu defar la bu ko masaana nett li daana wax ne Balla Fall yi moom da ko tudd waaye ñeneen ñi mel ni Balla Fall yi ñëpp itam loola loola mooy seen liggéey ci murit <coughs> kon ñi mu jur ak li mu bind ak ñi mu yar ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo daan jël maanaam palaasam ci defar nit ñi bu ñu demee ba jëmmi jamono itam léegi ku ne xam na ne ñi mu jur nekkatuñ fi ñi mu yar nekkatuñ fi waaye mbindam li mu bind mi ngi fi ñi nga xam ne itam ñoom ñoo ñooy ay sëtam ak ñi mu defar itam seeni sët ñoom ñu ngi fi eh, ñoo xam ne xaj na ñi ñi mag ñooñee ñoo leen yaram kon lii warte fi ni mooy delluwaat ci mbindum sëriñ bi ak njàngaleem sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoom la yaroon ak ñi mu juróon yoon wañ tegoon seeni tànk ñu teg fa suñu tànk te xeeñtal nañ doon doxee loola mooy li nga xam ne jamono bi ñu toll moom na laaj ni nga ko waxee léegi sëriñ bi jamono bi jaxasoo na mm-hmm. kuréel yi bari nañ mm-hmm. fookar yi wuyu si sëriñ bi eh, kenn ku nekk ak sa jikko nga wuyu si sëriñ bi waaye sëriñ bi moom la mu la mu nekkoon ba léegi la mu bëggoon ba léegi moom la gën a bëgg la mu bañoon ba léegi moom la gën a bañ ba eh, eh, nga xam ne ne ci boo demee ci wet yu bare bare bari ñu ngi ñu ngi ciy tuddoo sëriñ bi rawatina sëriñ Saliou ndax sëriñ Saliou day koo xam ne moo mujj ci doomi Sëriñ Tuubaa yi euh, nekk fi diir bu xaw a yàgg nga xam ne ñu bare bare bari euh, moom la ñuy gën a miin ci ñi ko jiitu woon ndax am na ci ñoo xam ne sax mun ñi ñi jiitu woon sëñ bi mu ci mel sëñ Blaas sëñ ñoom sëñ leen fàttaliku bay tuddoo ci ñoom dara waaye moom mu ngi fi mujj nag daa mel ni ñu bare bari moom la ñu gën a singali ci yu mel noonu surtout artistes yi dama yàlla bal ñi nga xam ne dañuy yëngu ci ay fond ngay gis ñoo xam dañuy dañuy dañuy wax ne suñ salu nee na ma nangam ak nangam nee na ma nangam ak nangam ci loo xam ne ku ne xam ne ni suñ salu ku masaan toog ci wetam ñu di ko nuyoo léeg wala ñu di ko tudd tudd ay caaxaan da ngay gis ni muy kanam gi soppi ko kon loolu nag war nañ ko wormal ci bi mu fii nekk ni nga xam ne ñi mu tudd euh, di ko tudd tudd am foofu bu fi jógee itam war nañoo fexe ba sàmmante lu mel noonu dem nañ ba léegi ñiy def ay ñaan moom la ñuy tuddoo mais ci ko xam da ngay dégg mu naan sëñ Saliou moo jox ay ay ay reen da daan ànd ak man dina dem ba ci ci ci àll bi mu ne ma gasal reen nangam ak nangam loolu sëñ Saliou man nga man nga ne moo ma yar boo moo ma yar ak ba ko waxee loolu day na day na day na day na day na wax dëgg yàlla crédibilité ci nit ñi waaye nag nga jël ko di ko askanale ci loo xam ne euh, doonutoon ab liggéeyam loolu it wax dëgg yàlla maanaam war nañ koy moytandiku <coughs> kon daal ci gàttal bari na yu bari yoo xam ne ñu ngi génn eh, nit ñi di gën a ittewoo di ci gën a jëm ndax junj ko ba léegi day mel ni fi ne nit ñi saayir lañ gën a gëm ci ci ak jub te fekk ak njub mooy lépp mm, karaamatul wali an la yansiya fi zahirin wa baatinin in hosiya mm-hmm. nit la muy wane la ko sëñ bi defal la ci gën a la ci war a gën a jiitu mooy ak njub ak njub moo taxoon sëñ bi di defar nit moo taxoon nit ñi di bàyyi seen bopp bàyyi seen i mbokk di ñëw ci sëriñ bi euh, euh, njub googu euh, moom lañu war a gën a insister waaye léegi dem nañ ba ñi sëñ bi seexaloon sax léegi ku ci ku ñuy xool sa ceex fa mu toll dañ koy natt ci mbooloo ma ma nekk ci ginnaaw ak alal ja nga am ak say bien mm-hmm. te fekk loolu bokkatu ak li nga xam ne moo taxoon jóg sëriñ bi nettali naa ko léegi ci sëriñ Isaa jenn ma soo ko laaj sëriñ bi ne ko ndax nit ki boo ko seexalee ba noppi mën ngaa nanguwaat ceex gi ci moom euh, mu misaal ko ne ko dafa mel ni euh, aw ku doon tifli gestu yem ci ak nit tifli doo dal ci kawam tifli doo du yàgg-yàgg ba nga jël ko di ko dugalaat ci sa gémmiñ gàcceex dëgg la xéewal yu yoo xam ne dafay génn ci sëriñ bi dal ci nit ki la nga xam ne lu muy tàmbalee ci tey la waaye nag dul nattukaay boo xam ne moom lañuy natte may gi sëriñ bi di may taalibe yi mm-hmm. bari na ay mag ñoo xam ne buñ leen tuddan doo xam seen tur te sëriñ bi wax na ci ñoom loo xam ne euh, ëpp na àdduna mm-hmm. mag ñoo xam ne kenn xamul seen tur mm-hmm. am benn taalibe topp leen waaye sëriñ bi def na ci ñoom loo xam ne bari na ñii ñuy wax ay boro yu mbooloo te ñooñee yóbbu lu ñu dara <coughs> ba tey ñu bàyyi xel ceexal seexal li taxoon sëriñ bi di ko def sëriñ bi li taxoon muy seexal euh, dafa fekk nit ñi ñu dëgmal àdduna bàyyi seen borom occupé ci àdduna ba amuñu temps wu jaamu yàlla amuñu temps wu def dara ci lu baax mu jël àdduna jox leen ko ngir ñu dimbandikoo ko ci jàmm yàlla loolu lii misaal mi dafa mas a fekk maam Thierno benn bis muy jàng alxuraan bu jàngee ba noppi eh, ba def xatmu di sant yàlla di wax alhamdulilah fekk sëñ bi mi ngi wër ci kees yi ba toll ak moom gisu ko ñuy wax alhamdulilah sëñ bi bu ñëwee ba toll ak moom mu taxaw daal ko wax alhamdulilah de war ko wax ko war na la ndax bari na ñoo xam ne jox naa leen ak yëbbal waaye seenu yëbbal dañ ko lekk fii ci àdduna waaye tax ñooy malaaka loolu misaal la ci. lolu barke bi nga xamne mom la sëñ bi séddale ab yebbal la manam dañ dañ ko wara a delloowaat ci liggéeyal ci sëriñ bi liggéeyal ci l'islam taxawalat ci yoonu sëriñ bi ni sayidna ibrahim waxe won ci alquran rabbana li yuqimu salaata fajal afidatan minan annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min azamarati alalam yashkur bi mu taxawale ay doom fofu ci wetu kaaba gi te bàyyi leen fa dem dafa ñaan ne yàlla defal xol yi ñuy wuti sama waa kër ñooñu bu ko defee nga defal leen ay xéewal ndax xañ na kon danañu sant kon sëñ bi bu jëlee ab murit tàggat xoli nit ñi ñu dëgmal ko di ko jox seen alal di ko jox seen wërsëg loolu li ci bi maanaam mooy mu àndaat ak murit yi yooyu nga xam ne moom la leen boole delluwaat ci seen borom loolu kon mooy ni mu koy waxee ci xikmatu bi koo xam ne nit ñi dañ la dëgmal nga ànd ak nit ñi jëm ci suñ borom suñ borom dana la musal waaye koo xam ne nii dañ laa dañ mën nga ànd ak nit ñi jëmee ci leneen lu bokkut ak suñu borom kon yaa ngi def saxaan kon daal ci gàttal euh, seen nañ lu ñu xàmmee euh, murit gi mooy la xam li ko taxoon a jub respecté itam sawaabit yi ndax li ñuy wax ay sawaabit dafa am ci murit gi maanaam mooy yoo xam ne daf ne kekk maanaam bokk na ci loolu bañ ak bañ ak nasaraan maanaam bañ euh, jàng jëm ci koy koy àdduna loolu sëriñ bi daf ko daan moytu bu baax a baax kon loolu itam ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ koy tudd wax nañu fexe ba lu àdduna yëngatu ak lu euh, koppar yi bari bari ñu respecté ñun suñu suñu suñu loolu nga xam ne moom lañu sëriñ bi bàyyi loon mooy ndono loolu ndonol mooy ndonol jàpp ci li nga xam ne moom la bàyyi loon euh, te doyloo ko su ko defee itam eh, bari na bari na bari na ci biir eh, murit gi yi ci feeñ yoo xam ne junj ko ko léegi am na si yoo xam ne eh, dañuy wax ne dañu àggale ci nit ñi ci yàlla mm-hmm. nekk ci biir biir murit gi mm-hmm. di woote leneen loo xam ne bokkul ak njàngaleem sëriñ bi ba noppi ne murit lañ mm-hmm. loolu itam mm, mbir la moo xam ne maanaam mi law di wéy nga xam lay jox ay wérdu yoo xam ne wérdu nangam nangam junni yoon ay ay julli da ngay mujj daanaka doo am temps mm-hmm. loolu bokkul ak njàngalem sëriñ bi yooyu yëpp mu ngi mi ngi circulé ci biir dëkk bi mm-hmm. ak ñoo xam ne dañuy am ay yeneen tayaaraat yoo xam ne ca lañ bokk yoo xam ne mi ngi jóge fenk wala feneen di wane ne léegi dañuy ñëw ngir jàngal nit ñi imaan wane ne li ci ëpp ci seen ngëm ak shirku la wane nit ñëpp ñoo yam nit ñi amul kenn koo xam ne gën nga kenn lenn nangam nangam nangam yooyu itam mi ngi fi bari di circulé ci dëkk bi di loo xam ne itam maanaam sëñ Saliou ci ak mu jëm daana ko jàmbat man ak sëñ Cheikh Wallo ak sëñ Khadim Lo moom sëñ Moustapha Lo nañ ko am benn téere bu ñu ko doon yëpp lu mu noppee wax mooy ñi fiy jàngale am njàngale moo xam ne bokkul ak njàngaleem sëriñ bi ci dëkk bi ñu ngeen fexe ba génne leen dëkk bi nga xam ne baatu génne la wax mm-hmm. loolu di tekki ne maanaam loolu doon na loo xam ne ah, bokk na ci li ko metti woon mm-hmm. yooyu nag ay yëf la yoo xam ne euh, nañ koy xeexe ginnaaw ñoom ñiy def loolu dañu wax ashhadu laa ilaaha illallaah ashhadu anna rasulullah mënuñu tabax jàkka nga toj ko mënuñu tabax daara nga ko loolu kon li ñuy war a jàngataat mooy xool terrain bi mm-hmm. biddug terrain léeg-léeg da koy waral mm-hmm. terrain bi bu ci kenn nekkul faw am ñu dugub ci biir mm-hmm. noonu ko Mahamad Xutba waxee woon bi muy jàngal bi muy jàngat maanaam situation bi amoon Égypte